yàlla na ne yéen julit ñi na ngeen di dimbandikoo yaari yef de len dimbandikoo muñ moy tëj sa bakan ci la nga xamne mom la sip na ngeen di itam julli beral nako awtut ndax bi dem de muñ nak ñatti dara jala muñ bala be bañ ko jambat muñ ndigal yalla yi be top be def ko muñ tere yalla yi ba bayiko de ñatti dara jala muñ gu jëkk gi mooy muñ gu ndaw muñ balaa ndogal ak yàlla goo xam ne dëpp wut ak la la neex nga muñ ko ba bañ koo jàmbat bañ koo naqatlu waaw kooku mooy muñ gu ndaw soo ko muñee yàlla dana la yëkkatil ñetti téeméeri daraja daraja ju nekk digganteem ak moromam dana dañu diggante fi dégg asamaan doxab juróom téeméeri at muñ gi ci digg bi mooy muñ ba topp ndigalal yàlla kooku mooy muñ gu digg doomu gi kooku waaw soo ko muñee boo muñee bala la yàlla digal nga def ko da ngay muñ xam nga soga mëna taxawal julli da ngay muñ soga mëna xor gep top yalla go def muñ moy jitu nga sokko mëna def so muñe ba top ndigalal yalla yalla dana la yëkëtil juroom ben téméri daraja daraja ji ci nak dana ni digënté fi asamande, asaman de waaw moy muñ gu digg doomu muñ gu mag nak moy muñ ba bayilu yalla téré de so muñe ba bayilu yalla téré nak yalla dana la yëkëtil juroom ñënant téméri daraja daraja ju nak dana digënté fi asamande asaman de do xab juroom téméri at moo gën a jafe muñ def ndigalal yàlla yi ñu bëreeng ciy góorgóorlu muñ ba bàyyi tere yàlla yi nag jaam yàlla yi sell yi rek la ko yàlla may de yàlla ñu ci yàlla boole yàlla na dimbandikoo leen muñ te ngeen dimbandikoo waaw julli de waaw yàlla wax na ne ci topp yàlla man jaa abil hasanati falahu hasru am saaliha lu baax loo def bu dee benn fukk la la ko yàlla fay wax ci sadax ne masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanaabila waaw nga xam ne benn bu nekkee juróom-ñaar téeméer la ko yàllay fay waaye muñ moom yàlla wax na ne innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri hisaabin muñ kat nag moom yàlla daf koy fay pay koo xam ne du am lim de waaw yàlla màggal na mbiram muñ waaw ba noppi tagg na ko fay na ko pay goo xam ne moo ëpp pay yëpp mboolem pay yi topp yàlla yëpp muy pay julli muy pay sadax muy pay koor pay muñ a ko ëpp wax nañ ne moom yàlla mi ngi ànd ak muñkat yi waaw inna laa ma saabirina waaw na ne yàllaa gën a muñ képp kuy muñ li muy dégg ci ay lor yuñ koy jëmale di ko sàkkal jabar di ko sàkkal doom di wax ne dafa nay bañ gax ay loxoom te xam ne ñi koy wax ñëpp seeni loxo seeni roxo ngi ci loxoom bu ko neexoon foofa la ñuy xam seeni wërsëg a ngi ci loxoom waaw mu di ko muñ rek na na yàlla ak ana muñ képp kuy dégg lu la naqari di ko muñ yàlla la ko dàqa muñ yàlla tudde na boppam sabuur naka mu tuddee boppam xaliim waaw yaakaar ji jaama xam ci xaliim nag moo ëpp fuuf yaakaar ji muy xam ci sabuur ndax muñ moom kuy muñ gi moom yàgg-yàgg dafa leen di yéexe rek waaye dana leen bugal xaliim nag mën naa am sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne loruñ benn yonent ci mboolem yonent yàlla yi lu day ni liñ ma lor de waaw maanaam kenn seetlu ci yonent yi baax ci sama maqaama loolu la ca jublu ndax balaa mi ngi gën a topp ci yonent yi topp ñu gën a topp topp wali yi topp ku gën sa morom rek waaw xëpp ko balaa motax be bam ne mo upp lor mbollem yonent yep wanena ne mo upp maqama wa mbollem yonent yi de wa innaha naka moom julli la kabiratun aji diis la mu illa alal xaasina ndara ca way ragal yàlla de waye julli nak lëf lu diis la waaw ci cër lumay ko xam nak ne jaama bi yàlla bu ragal yàlla bu delu ci yàlla waaw kooku mom yàlla dana ko tagatal julli bam mu ci mom de waye waaw naafeq yi nag julli dafay waaw dafay diis ci ñoom de dañuy toog ba waxtu wooy bëgg a jeex ñu soog a jóg waaw këpp këppal julli goo xam ne waaw dañuy sab euh, waaw waaw cof su jóot ya waaw ak rukkoo ya de duñ ca tudd yàlla lu mooy lu néew waaw googu julli mooy julli nga xam ne yonent ne julli naafeq la de ñi nga xam nag ne dañuy toroxlu ci seen julli ñooñu la yàlla wax ne ñoom julli dana xoyof ci ñoom de waaw toroxlu nag ci xol lay nekk waaye su xol bi toroxloo cër yi toroxlu waaw xaaliban màgg ak yàlla ci xolab jaam bi bem gis jaam bi gis na toroxa fi kanam boromam loolu lañ nam ci toroxlu du jaageen di sanaataka waaw sëga ka muuroo ka dama baat ngir ñu defe ne ku lu yàlla la ga loolu moom meloo naa féq la waaye daal bu baatin bi yaroo faw dana jeexital ci saayir si ci njëlbeen lépp bépp maqaama nag boo xam ne jaam dana ko xam ci digganteem ak boromam njëlbeen nga daf koy toggoo waaw toroxlu ci njëlbeen da nga koy toggoo soo taxawee ci julli waaw taxawal say tànk bu jub ñu jublu xibla waaw nga bañ koo yëngal waaw bañ koo jàngal fasta say loxo waaw teg ko ci sa dënn waaw ngir wattu sa waaw xëy na ji bañ a rëcc waaw nga taxaw doo sëgg doo téen waaw doo gëmm waaw ngay jàng doo déglu sa nopp di déglu li nga xam ne moom ngay jàng doo teewlu lu mooy maanaam waaw li ngay jàng def yàlla rek ci sa xol waaw loolu mooy mooy toroxlu ci julli soo xamee ne ci njël gën jéem nga ko nag ba man ko waaw boo ko mënee nag man ngaa tàlli waaw say sa toroxlu noo nekk ci sa xol du feeñ sax ci say cër Omar ibnul Xataab bu daa wax fii nga di ko dégg ca kaw booy dox kenn du ko mën a jot ngir waaxu ba muy waaxu kum dóor ngay bëgg a dee te moo moo rawoon ñooñ jamonoom waaw ci torox yàlla de waaye loolu waaw mujj gën a de njël benn gën a fokk nga toggoo ko mu ne na ngeen dimbandikoo julli julli nag lu diis la lu mooy ca ña nga xam ne ragal nañ yàlla de ana ñoom allazina ñoo di ñaaña yazunnuna danañu hóolu annahum naka ñoom mulaaqu rabbihim way dajeeg borom seen lañ ci dekki de wa annahum ak naka ñoom raaji'uuna way dellu la ñu ilay jëm ci moom yàlla de ñi nga xam ne toroxlu nañ yàlla ñooy ñan ñooy ñi nga xam ne xóor la ne na leen ne daañ dajeeg seen borom daañ dekki waa ba taxaw fi kanam yàlla mu fay leen seeni jëf yépp lépp lu ca baax ak lépp ca bon ñooñu ñooy ñi nga xam ne danañ mën a julli julli goo xam ne danañ ca toroxlu yàlla de julli yàlla itteewoon na mbidam waaw ci laay ji dane war kaw maaraakiina waaw dellu na wax ne way naa la kabiratun ilaa alal na gannaaw bu mu waxee ne wastaayinoo bi sabri wa salaati waaw moo tax be waaw julli lu mat a yittewoo la de waaw <clears throat> julli war kaw maaraak na nag moo waral julli mbooloo de waa tey ci faatihatul kitaab gi nga xam ne lépp lu fasoo ñëw ci téere bi ma nga ca waa booy jàng da ngay wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu nun ak jamono ngay indi de bona war na laa fekk ci mbooloo de su fekkee yow rek julli kay waa kon iyyaka du ngay wax de <coughs> adu moom waral na ko na ne ku julli ci lu mbooloo amuloo amuloo julli maalikit gag ci ñaar fukki at ak juróom ndax ku julli te julliwoo ci mbooloo da nga am déet ndax li yonent wax ne sallallahu alayhi wa sallam laa salaata li jaaril masjidi illa fil masjidi illa li uzri yonent daf ne xamut julli dëkkandooy jàkka xamut julli su fekkee julli na fu may ca jàkka ja ndare mu am ngant Malik ne bon nag ku julliwut ci jàkka ja ndax da nga am julleem déet ba am ñaar fukki at ak juróom hadis yonent bi wax ne genn julli ci mbooloo boo jullee ci mbooloo yàlla dana la bindal téeméeri yiw soo jullee yow kenn mu defal la ñaar fukki daraja ak juróom soo jullee ci mbooloo kon da genn julli da nga ci am ñaar fukki daraja ak juróom ñaar geneen xadis ne ñaar fukki daraja ak juróom mu ne ku julli genn julli goo julli ci mbooloo gëne yow kenn ñaar fukki daraja ak juróom ñaar wala ñaar fukki daraja ak juróom Malik ne bi nga bi mu waxee nag ne julli gi ci mbooloo moo gën mu xame ca ne bon julli yow rek it terewut wét na de booba la soog a gàgganti ci gàggam boobu waaye am na ñaar fukki at ak juróom moom Malik gëm ne moos ku julli ji wut ca jàkka ja amuloo julli